mu def ko jox ko directeur école ba ne ko foofu bu fa kenn jëndati fourniture euh, ak euh, événement yi nga xamante ne ay tabaski la yoo xamante ne ñi nga xamante ne néew nañ doole yi ñëpp mu di leen wutal ay tabaski ñi mu di leen wutal ndugg tabaski kenn ko ci nekk daal euh, la muy cërloog yow mi ngi koy def ci wërsëgam te it nag amu ci xàjj ak seen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 Euh, ngeen gis gàmm bi nga xam ne moom la suñu lijaay woote muy El Hadji Badou ngeen dégg ko si xam-xam ngeen dégg fii loo xam ni ay waxtaan yu am solo la euh, ku si mel nii yéen imam bi ngeen fi dégg sànq yéen koy dégg muy waxtaan waxtaan wu am solo tey ñu indil leen lii nga xam ni fii 7TV lañ leen koy doxal di leen ko euh, jaajëfal ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéenay safoo 7TV partout dans le monde. Euh, ba tax na ñuy wéy si biir bâche bi encore une fa fekk fa ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy parrain bis bi waaye ñi nga xam ni ñoom la ñu dajalee bis bi ku si mel ni muy El Hadji Galo Ndiaye moom la ñu dajalee bis bi fii nga xam ni moom mooy muy ba tax na dañuy ànd ak waa set tv ànd ak équipe bi yëpp ngeen dem dégluwaat waxtaan wi ba si kanam asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.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 وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله عظيما jërëjëf asalaamualeykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen màggal di wax soose bàyyi li nga may def li neexuma fu ñu tase rek ñi nga may def ñu ngi nuyu di sant nag parce que loolu moo ñu war loolu la ñu war a def tey lépp sant ngërëm la ñu ci jiital ki nga xam ne mooy sunu sëriñ nekk sunu wéeruwaay nekk suñu cëslaay muy Cheikhu Omar si Maodo mi fi jóge léegi daanaka conférence al nañu sa jumaa ja ñu di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér ndaxte taxawaayam bi si diine ji lu rafet la bëggoon naa ñëw waxtaan fii waaye xat-xati jamono ji ak programme yu bari yi moo tax ñu yewi ko mu dem te mi ngi jëm ba Ndar bu fa jógee dana dem euh, Touba ci lim ma wax bu fa jógee dana ñibbi Tiwaawan te gan ñaa nga koy njëkk koy xaar kon kooku euh, muy jaral na ko lu ne wane ne ne fii la bokk kon ñu koy ñaanal rekk di ko sant di ko gërëm man bi ma nekkee tout tànk sama bay dafa ma daan yónni di ma yóbbu foofa maa ngi jàngi ma nekkoon xale bu ndaw mu may ñaanal di ma ñaanal di ma ñaanal ba jóge fi kon kooku mënuma ko fàtte dama doon def sax saa yu ma ñëwee fii balaa may def dara dem bëkke bi nuyu kon kooku duma ko fàtte mukk am na lu mu def ci man lu bëree bari bari wax nga ko te man xam naa ko noonu la ñu nuyoo délégation bi nga xam ne Mbagnick njaay moo ko jiite muy délégation Aly Ngouille wax ngeen ci Aly Ngouille léegi waaye lu ngeen wax rek am naa yaakaar ne dese ngeen lu ngeen waxul parce que li muy def fii la defee tey bu ñu amee courant Aly Ngouille moo ko fi indi bu ñu amee yoon alinguy moo ko fi indi fàtte woon ngeen forage bi aussi dugal na ci loxoom bu baax ak jumaa yi kon kooku ku ñu war a sant la di ko gërëm ñu ngi lay jox suñu nuyoo nga nga joxal ñu ko di ko wax ne fàttewuñ ko mbay ñi wax na ko léegi ñu ngi sant aussi suñu mag ñi nga xam ne bi yéen Omar Seck wax na ko aussi ñu yore woon gàmm gi démb dem ba mu yàgg ñu tànn ma woo ma ne ma ci yow la am yaakaar ñëwal nga jiite gàmm te it li ma ko jiite lépp aussi bàyyiwuñu ma seen loxo jógut ci man it kon ñooñu fu ñu toll war nañ leen di ñaanal te di nuyu jigéen ñi jiital ci nag sama ñaari soxna yi nga xam ne bii yu ñaawul yi nga xam ne bii ñu ngi fii ci kër gi euh, si biig ba léegi ñu ngi fii di teral gan yi yàlla na la mel ni yàlla fayal te lii may wax nii sama jarbaat mii xam na ko ak ñiy ñëw sa kër ga muy sama aawa di Astou ak rakkam soxna Aïcha maa ngi leen sant di leen gërëm dañ maa dañ maa dañ ma dañ maa téye téye bi nga xam ne bii moo war ci jëkkër ma leen di ñaanal nag seenu njaboot yàlla nañu ci liñ ci seenu yëpp yàlla na leen ko yàlla dem damaa toog mu toog mu ne Badou gàmmu di métti na mais wat naa ci yàlla at moo gàmmoo te yàlla tax at ma ca topp la ngay am ci teraanga mooy ëpp doole li la yàlla di def yàlla bu la sama gémmiñ topp yàlla bu la ca topp de waaye la am nga sax sa njaboot bu la bu la neexoon ñoom lii nga bàyyi leen ko ñoom ñu def ko mamar kontaan nañ lii rek moo tax ma doon wax ci parrain bi ndax galo daf ma jur di nit ku baax ci mujj dundam mook sama nijaay Amadou Abdou Boy Ndiaye bu new ak sama nijaay Sawru njaay bu cees seen mag Yimma njaay mooy jur sama grand frère yi ak sama grande sœur yëpp Ndiaye lañ sant man li sëñ Fallou waxoon ne xaw tuut ma sant si man xaw tuut rek ma sant Ndiaye xaw rek ma sant Ndiaye ndax Yimma njaay ak ñii ma la wax ñoo bokk ndey ak baay biñ fi jógee première gàmmu dama gaare sama oto bulal rek sama yaay ne ma seen yaay yegsi nañ ma dugg ab du Boy ah, góor gu baax waaye mu ne doom tëjal bunt bi déglu nañ la bul sàggante muy bul bàyyi muy badu duñ la mës a bàyyi fu ñu tolloo danañ la jàppale fi nga teg sa tànk foofu la fonkal sa mag yi ëmb di jaañ ak jaga ak mag ñu baax ñi bërki démb dat yi mi ngi nii toog def ma wax ne ma Amady jaañ du négocier ci Badou du ko baal dara ndax yaakaar ah mbokk yi lii mooy muy guddal naa waaye li ci des mooy xalifa sama gàmmu gi na ko waa muy gàmmu nag samedi la général na ko Momar Ali mi gàmmu ana kii mbañiñ nijaay samba naka Ali nguy gàmmu ji jigéen ñii toog seen sañse yii bala moo ràpp xade Ali indil leen ma ko ca bulal boo gisee léegi sañ xalifa nee na bulal mu may waaja a nangu ci njuusi loolu du mës am ndax di 17 la ak di 17 bi bu xale yi taree gis nga xale bii doon tari léegi et surtout kii la sayer kii ah Basiru Loo kan mooy bàyyi ma te kii waa ji màggat euh, màggat Seck ca daara moo ko jur ngéwal ngéwal googu la dëkk muy set paye ci lañ ma ko jox ma koy jàngal alxuraan mu jàng fi inna fatax naa bi paye Basiir loo jur ko dix-sept bi mooy njoosi fa la ñuy xadara gàmmu fa gàmmu fa ba guddi gi sori waaye nag xam ngeen ne ren moom spécial lañu am ndax mbëllëxe ñoo moom gàmm ñoo moom tey journée yi maam alxaaji daawda ja aarifu billahi ba ki seex seydi xaaj maalik ne ko woon boo demee jolof njombaan billahi sama réew yépp li ma doon rêvé ma am ko moom laa waxtaan ak xalifa bi bàyyi ma buri ja mu ne ma bu ko njóosi pare ne wàcc nañ ma woo sëñ xalifa mii see mag mu ne waa njóosi yéena moom alaaji daawda alaaji daawda moo leen moom ndax alaaji daawda ñi mu am ñépp ci ñu baax njóosi lañ jàngee alxuraan yaa ñàkk ki ñaan boo doon keneen doo ko wax bàyyi Mouhamadou Lamine Dia muy way juróom mag ñi nee nañ kooku ni mu xamee yàlla xamee ko yonti yàlla Mouhamed Mara di Taali alaaji Moussa ñoom ñëpp ak góor gi Mouhamad Lamine euh, Abdou bi ñu toogoon ak barki démb ñoom ñëpp njoosi lañ jàngee alquran léegi nag kon loolu bisub jolof la maa ngi leen di invité yéen ñëpp ci cérémonie collective bi samedi 18 la 9 h la ñuy la ñuy tàmbali balaa quinze h ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu teggi tànt bi. Touba ñooy sunu dawal. ci bor bi nga xam ne yore nañ ko Alioune Badara waaye balaa loolu ñu nuyu kilifa yi fi nekk ah monsieur le sous-préfet ñu ngi lay nuyu di rafetlu sa taxawaay ci gox bi parce que bëri na tànn yu tant yu ñuy ronu bu ñu demee fekk la fa wala nga fekk ñu fa te loolu dañ koy rafetlu di la ñaanal mission bi mu oyof di nuyu sëriñ yi fi nekk muy xalifa généraux yi di samay kilifa. ah maam Amadou Mbengue sama maam la ci côté bu nekk ci mbengeen ci njaween yépp moom xam na sama papa Khalifa Dia moom it sama papa la ndax kóllëreem ak sama papa bi ma jur waaye taxawaayam aussi si biir Jolof kon ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di nuy imaamu dëkk bi di nuy kilifa yi fi nekk yépp di jox kilifa gu nekk seen wàcc sa wàccuwaay ñu ànd ak délégation bu am solo kilifa gi di sama papa Baba Ngiraan jóge ba Dakar bàyyi lépp ànd ak ñun sëriñ Diaw Cheikh Thiam directeur Mor Thiam Lamine Yoro Guña Cheikhou Diaw Mam Daam ak ay jigéen yu am solo yoo xam ne yépp ñu ngi ci dëkk bi te loolu boo ko gisee rek fi ma commencé woon lañuy ñu dellu mooy bor bi nga xam ne Aline Badara ameel nañ ko ko ñu ñëwoon pour dawal ko ci fay ndaxte Alioune Badara wax nañ ci moom ci CASD wax ci ngénki waaye dañu leen di firndeel ne weesu na foofu dugg na xer gi parce que jëf ju baax amul limite amul frontière ñuy rafetlu taxawaayam kontaan ci moom di leen wax ne modèle la jolof jolof yëpp a ko war a roy sénégalais yëpp a ko war a roy ndax li muy def ci cosaanam même bu yemoon ci biir muy kese modèle la ku nekk copier ko dem defi ko fa nga dëkk. ku am lu ko ëpp nga génne ko sa dëkk parce que lu baax boo ko gisee roy ko boo ko mënee wax wax ko ñu ñaanal ko ñun ñëpp ndaxte lu rafet la lu baax la lu am solo la ñu di ko rafetlu même bu dee ñu ngi wax sax ni casde wala ngénki wala yooyu ñun xer ga lañ bokk mbé yéen bokkul casde kon bu doon bu doon casde moo la leneen moo ko tax a jóg fii lay yem waaye rek ñu leen di firndeel ne jëfam ju baax génn na fii xalaatam génn na ba ci programme yi ñu def Dakar sax Alioune Badara day ñëw taxaw dugal loxoom loolu moo nag moo ñu yëngal parce que nit moom lu mu yëng lu yëngu rek la ko yëngal ak ëpp doole. samaam jógal taxaw Babacar Si xolo Si jël maam xalifa maam xalifa maam xalifa Babacar Si jël na sang boobu naan watu dàq fi raw fi ay waa boy doon si jël naa Sidi Ahmed Mbaye lay woyal mam xalifa waa مولاي يا مام خليفة بابا كرسي جلنا واي تفسير يا مولاي يا مام خليفة بابا كرسي جلنا تفسير بايا بكون كدبي خليفة بابا كرسي جلنا خالي عثمان كون كدبي مام خليفة بابا كرسي جلنا باي تفسير كون كدبي مام خليفة بابا كرسي جلنا في جنبك سيرين بابا كرسي xalifa Babacar Si jël na nay tafsir ku nu ko duppee maam xalifa Babacar Si jël na xaali Ousmane kun ko duppee maam xalifa Babacar Si jël na nama la samedi ba samedi la daan watu dàq fi raw fi fi raw fi yàgg fi yàgg fi du tufli du gëstu maam xalifa Babacar Si jël na yow yaay booram leer maam xalifa Babacar Si عدنا نامي سد ما يسمى نصور أي وخمود أي عدنا نامي مولود يا مجاخاي أي وخمود عدنا نامي سد ما يسمى نصور أي وخمود يا رب ماغي وخليلان محمد مصطفى بمدك يا رب ماغي وخليلان تكنا نوتل غيفر أو نفهم خلين فما كان aboo jahal dafa daw ba ma naanu taayam réer ko abi jural nañu doom doom dootu mel ni moom ba mukku mukku mukku sadila walina wa saydila ay dagg la ma wutaay ay waxam du yaa xayru xalqu lay musafa maa ka lay jullee gee rañan waxat buur bee dellu si jullee ñaan ba fajar dellu si jullee waay fajar ku bëgg sëñ Baaba loxo ca kaw jugal taxaw ca ay juglan màggal yéen لا تدري أي تلسج الأيوة فجر تلسج سوى ما تكو سنتي مسجي فجر كوبك سنبابا لوخو جاكو كوبك دمبخما لوخو جاكو كو سبو دمبخما لوخو جاكو يكتل لوخو يكتل يكتل لوخو يكتل لوخو يكتل تلسج الأيوة فجر كوبك سنبابا لوخو جاكو كوبك مامو غالو ku sopp maam galan loxo jokkoo ku bëgg maam galan loxo jokkoo jugal taxaw ca góor yéene jugal taxaw ca góor yéene borom buy jolaf ay jugleen màggal yéene ay jugleen màggal yéene ay jugleen màggal wa radiya allahu an taaj al-aarifin wa mumiddi kulli awliya arrahmani saaxibi al-anwaari wal-fuyudaati mawlaaya ahmad ibn muhammad at-tijaani as-saalimi سقانا الله من فيض بحر نوره الرضوان بأعظم الكؤوس والأواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واي فايلين ما نيو واي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واو كاñ mbokk yu tedd yi daje ci barab bi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi nuyu ñépp kenn ku ne ci turam ak santam ñu ngi jiital ci nuyoo bi a imma yi ñu fi fekk yépp fa tabaarakallaahu jël nuyoo bi teg ci loxo maam Abdul Aziz nuyu Serigne Cheikh Oumar Sy mi fi jaar ci suba nuyu mboolem boroom xam-xam yi nuyu fa tabaarakallaahu soppe yi nga xam ni yépp ñooroonu baas bi ngir génn jëmm rekk muy sayyiduna muhammad waaye ñu jël nuyoo yooyu yépp teg ko ca loxo Alioune Badara Ndiaye Sidi Ahmed wax na dëgg dama yore daara ju toll ci ñetti téeméeri taalibe yu internet fu ne la ñu jóge ma ni bàyyiwuma gàmmu de waaye dama ciy wàññi lu bari ndax mën a concentré wu ci xale yi waaye Alioune Badara li Sidi wax rekk jarul ma ciy dellu jamono bi ñu nekkee ci coronavirus moom day mooy nit koo xam ne doon nañu ko gàmmul muy def léeg-léeg mu ñuy xalaat day jékki rekk tëmbalal la dara nga xool rekk gis message bi xool mu bindal la njaay nga woo ko téléphone du la woo de bu ko yónnee yaa koy woo téléphone naan ko ba àllin lii nag mu ni ah déet ñun nag bu ñu dee ay gor waruñoo xaar ba gàmmu rek ñuy def lii waaw kooku noo koy def te man macha allahu bu ma nekkul ci gàmmu gi maa nga ca liggéey ba Sidi Ahmed mii xam na ni lii ma sol nii maa ko ñaw damay ñaw di jaay <laughs> damay jaay ganaar Sidi Kaar macha damay jaay mburu man bu ma la jaayee mburu maa lay jaay ganaar jaay la soble jaay la pombiteer xam nga kon bu toogee di ñu xalaat rasulillah tax waaye ñu ngi for dara kon ñu ñaanal Alioune Badara yàlla na yàlla fay la gàmm muy gii bis mu tombeel tey jii liy gàmm ci dëkk bi ci réew mi bu daje woon bu budul woon Alioune Badara ku ni moom yaakaar naa ni ñi fi daje ñu baree bari du ñu ñëw tey waaye ku ne danga naan ay waay man nu may def ak Badara Ndiaye gàmmu gi maa ngi jéggalu jàppoon nañ ko la kaat mu tombeek ñu jàpp sama gàmmu way jur ma ni nañ ko fomm si di jërëjëf fekk na nga am programme waaye bi ma nee Badara nañu wut keneen ku ñëw mu ne ma déet muy yow lañu bëgg te man lu muy bëgg rek moom laay def ma ne ko joxe nañu dat yépp de mu ne ma fu ñu ko mën a dugal balay koor gi ma ne ah, xanaa ñu def ko bu ñu nee suba la ziar général Sidi Ahmed bi ñu ko woowee wax ko ko am na programme waaye dafa bàyyi lépp ñëw te ba ñu jàppee la kaat ñoo ko jàppandoo nuyu El Malick fa tabaarakallaahu ak délégation bi mu àndal yépp dugg ci guddi gi yaay booy seen sañse yii seen puudar yii seen maquillage yii seen takkaay yii li tax ngeen tal ko mooy jàmm ay jamono gi nii gàmmuñu xam nga lu taxoon mooy jàmm amul woon coronavirus bi mu fi duggee jàmm amul woon gis nga yaa ngi wax léegi yàlla na yàlla bu mu fi ñëwati yaa ngi naan léegi bu fi ñëwaatoo nit du tax ñu faale ko waaye bu ñu ko faale wulit nit ñu faale ko xam nga looy ñaan damay wax ni boo amul jàmm dootal dara kon jàmm ji ne ci réew mi bu ñu ko fowe boo amee lal bu rafet matelas bu nooy kilim bu sedd soxna su man affaire su rafet nga bëgg ko lool dara desul lu dul tëdd nga tëdd soxna si ñëw di la jege ab bëñ ni la ciix dootoo bëgg dara ci soxna seen néeg bi loo mën a am lu ne te amoo jàmm dootal loola kon bu yàlla dogalee senegaal jàmm ngi fi fitnaa ngi nelaw waay waay fitna bi bu ñu ko yee réew moo dem fitnaa nga fa jàmm nga fa bu yàlla dogalee fitna yeewu jàmm day nelaw bu yàlla dogalee jàmm yeewu fitna day nelaw fii nag jàmm ngi fi fitnaa ngi fi waaye fitnaa ngi nelaw jàmm yeewu na mu ngi dox nañu góorgóorlu ba jàmm jooju ñu jàpp di ko ruux nañu ko bàyyi billaahi fitna moomu ñu jàpp di ko ruux nañu ko bàyyi bu ñu ko yeewee ba mu yeew bu ñu xoolee réew yi amoon jàmm te amatuñu jàmm taluñu gàmm taluñu màggal taluñu xadaratul juma taluñu dara te lislaam jàmm da koo ñor lislaam symbolam jàmm la gis nga baatul islaam al islaamu mooy jàmmalaate aslama yuslimu islaaman jàmmal na dana jàmmal ak jàmmal kon diine la joo xam ni ni nga bëggee jàmm noonu ngay maye jàmm ki nga bokkal diine may jàmm ki nga bokkalul diine may jàmm ki nga bokkal parti may jàmm ki nga bokkalul parti may jàmm ki nga bokkal xeet may jàmm ki nga bokkalul xeet diine lislaam daal mooy diiney jàmmalaate jàmmalaate jooju nag nga xam ni moom la diine ji tudd yonent bi firi ne ko nii almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi nabi ni jullit biir ñu ni ah mu ni nekkul ci julleeg woor rek de ñu ni yaa rasulallahi kan mooy jullit mu ne jullit mooy ki may jàmm jullit yi ci làmmiñam ak loxoom waaye ne ci télé yi ci rajo yi kenn amul jàmm yore sa doole kenn amul jàmm ku la rob mu nga néewal doole yonent bi nee na bu yeboo nga dàq julli julli kaata bu yeboo nga dàq wër kaaba gi malaaka loo mën a am lu ne boo mayul nit ñi jàmm xamal ni doo jullit yàlla ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa yàlla ku leen fitna ay du yem bu ngeen xamee wuyu leen ma lu olof wax ay du yem ci gis nga bu ñu yeewee fitna bu jógee bu doon yem ca ka ko yee rek mu mën a doon jàmm waaye bu jógee da du yem ca ka ko yee moo tax yàlla ne yonent bi salaay salaam nee na al fitnatu naaima laana allahu man ay xadaha fitnaa ngi nelaw te yàlla rëbb na ku ko yee képp ku yee fitna yonent bi nee na rëbbum yàlla yàlla na dal ci sa kaw kon nañu góorgóorlu ci suñu jàmm ji xoolal islaam léegi El Malick bi may nuyu dani ma asalaamu aleykum lu muy firi asalaamu lan jàmm daf ma ni yàlla na nga am jàmm ma delloo ko nuyoo ni ko wa aleykum salaam Ndiaye yow it yàlla na nga am jàmm waaw moment bi ma naan yàlla na nga am jàmm ma naan koy yàlla na nga am jàmm yow it na fekk ni sama xol jàmm jooju koy ñaanal moo ci ne. gis nga sa xol boo yéenewul kenn jàmm doo am jàmm am na ku yor lu dul jeex yor lu ni gàññ waaye dundam neexul xam nga lu waral dundam neexul mooy loolu mu am moom muy jàmm ci moom yéenewu ko keneen kon day iñaan problème mu iñaan du avancé yonent bi ne al asuudu laa yasuudu ku iñaan ku ne doo yëkkati ku doo ab sang kon boo naan nit ki asalaamu aleykum muy simbalu lislaam yal na nga am jàmm day fekk sa xol nga raxas ko dul jàmm ëmbaloo ko nit ñi waaye man naa am jàmm te kenn am jàmm billaay da ngay sonn waaye doo am jàmm nit ñi nag dinañu am jàmm ndax yoroo seen jàmm waaye yow yaay ñàkk jàmm ni ko yàlla ne malaaka yi ma àndal ñoo yor montagne yi ñii la dóor ba xaañ la yi nga wax malaaka yi ñu jël montagne bi nekk diggante Makka ak ñaari mala ñaari montagne yooyu ñu dal ci kaw waa Makka ak waa Taayif nabi ni du man lañu tooñ Jibril ni ko waaw mu ni ko allahuma igfir li xaw qawmi nel yàlla na baal sama nit ñi Jibril ni ko yàlla ne sa deret jii di toq buy laal suuf muy def tremblement diggante Makka ak Taayif ñépp dee nabi di kar deret ji ba loxo biy fees mu koy mar naan ko maa anti illa asbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti baaraam buy naaj ci jarul tremblement allahuma igfir li qawmi innahum la yaalamuun yàlla ñi samay nit lañu man la ñu tooñ man man la tooñ man rasulillah dañ ma xamul moo tax ñu def ma ko mais buñ ma xamoon duñ ma ko def ay waay yàlla jéggal leen yàlla jéggaleen yépp man jéggale naa kon loo ciy jàngee kero bi ñu tooñee diine nabi dafa bañ waaye bi ñu ko tooñee en tant que rasulillah dafa baale kon pour jàmm am faaw ñuy jéggalante ñun ci suñu bopp ci suñu biir bu ko defee ñu roy sayyidina Muhammad wa fil axirati raaxibiin wa bil xadaayi saayidiin wa bin nicmaayi saakiriin wa alal balaayi saabiriin wa alal balaayi saabiriin wa alal balaayi saabiriin wa taxta liwaahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yowma alqiyaamati saairin wa ila al awdi waaridin wa ila al jannati daaxilin wa min annaari naajiin wa ala sariri alkiramati qaa'idin wa min uuri aljinaani mutazawwijin wa min sundusin wa sabraqin wa dibaajin mutalabisin wa min taami aljannati haakilin wa min labanin wa asalin musafan saaribin bi akwaabin wa abaariix wa ka'sin min ma'iin ma'a alladiina an'amta alayhim mina annabiyyiin wa siddiqiina wa suhadaa'i wa saalihiin wa hasuna ulaa'ika rafiiqaa ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بارك لنا يا من بدر ضاب فينا وفي جملة ما لنا تعب يا إمة سيق أهدري لنا بهذا المهدر فلتوت فيه بنصرة تأتي لنا بسفر أسكو إلى الله عاجا ليس يرفعها سواك يا ربنا سواك يا ربنا سواك يا ربنا يا الله يا الله allahuma salli ala sayidina muhammadil faatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri l aq bil aq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadri xaqa qadri xaqa qadri xaqa qadri xaqa qadri xaqa qadri xaqa qadri salaamun aleykum tibtum فادخلوها خالدين ومقدار العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين